di wax rek par rapport ak texte bi nga xamante ne si moom moo ñu fi indi xëy na am na sama collègue yi njëkk a jaar parole yi ko wax et tout à fait normal que tey jaaxle am jaaxle dina am parce que boo gisee loo xam ne da doon am te amul c'est normal que nga jaaxle waaye balaa may ñëw ci loolu rek dañu wax ne Sénégal trois pouvoirs moo fi nekk le pouvoir exécutif la pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ñu ne constitution moom moo ñu régir ñun ñëpp constitution boobu nag moom moo am loo xamante ne si da ko wax jëme ci kenn ku nekk ci trois pouvoir yooyu ñu ñëwaat à l'Assemblée nationale ñu am loo xam ne constitution moo ko théorisé mooy le principe de la séparation des pouvoirs Assemblée nationale am ay textes yoo xam ne moo ko régir muy le règlement intérieur de l'Assemblée nationale conseil constitutionnel dans son organisation interne moom tamit am loo xam ne moo ko régir muy seeni ay texte interne ñoom ñu wax ne ci seeni ñun ci suñuy texte ñu ne article 48 moom moo ne assemblée nationale am na droit constituer li nga xamante ne si moom mooy commission d'enquête parlementaire ñu dem ci euh, constitution euh, conseil constitutionnel cette organisation interne ñoom it daal di wax ne le Conseil constitutionnel ne peut être entendu que par son conseil de discipline qui est à l'intérieur moo tax may xaw a jaaxle ci commission d'enquête parlementaire buñ ko mettre en place en tant que des parlementaires par quelle voie la Assemblée nationale di demee ne dafay auditionner des membres du Conseil constitutionnel loolu benn laaj la beneen bi nga xamante ne si moom laay wax dañu ne l'Assemblée nationale légifère au nom du peuple sénégalais on est tout à fait d'accord parce que ñun ñëpp dañuy représenter le peuple mais tey bu taxawee fii dégg ñoo xamante ne si ce sont des parlementaires taxaw am sañ-sañu ñëw ne la ñu reporter élection yi nga xamante ne si moom la ñu war a dem le 25 février jaaxle daf may daal parce que mënuma comprendre ñu ne au nom du peuple mais est-ce que c'est moom moo ñu demandé nañu yéen kat defal leen ma report moo tax am na loo xam ne bu ñu ko waxee tey en tant que ñun ay député war nañu xoolaat suñu diggante ak le peuple sénégalais parce que yenn yi yebeel lay nduru te yaakaar naa ñun ñu fi toog ñëpp kenn yebu fi la population sénégalaise bu ñuy légiférer nañuy légiférer loo xamante ni c'est au nom de ce peuple la moo tax ci loolu man ma jàpp ne am na ay commission d'enquête parlementaire yoo xam ne groupe Yewwi Askan Wi demande woon nañ ko commission yooyu amul tey ñu ñëw ñu metre en place une commission d'enquête pour enquêter sur les membres du conseil constitutionnel ñu def ko fast track njaaxle dina am est-ce que ndax fonds yi nga xamante ne si dañ ko lekk ci xaalisu Covid bi amul priorité est-ce jeunes yi nga xamante ne si dañ leen di rey ci ay manifestation ndax loolu du priorité alors que suñu charte moo ñu wax ne la vie humaine elle est sacrée et elle est inviolable pourquoi quand des parlementaires écrivent pour dire que nañu ouvrir une enquête ñu taxaw lànk ko bañ et parce que tey ce sont les politiques ñoom ñoo aye ñun dañuy waxtaan ci suñu biir jéem a nan la ñuy def ba dimbalante entre bu ñu foowee le peuple sénégalais bi nga xamante ne si moom lañu ñu représenté beneen bi nga xamante ne si moom laay wax dégg naa fi ñu wax ne dañuy invoquer le président Macky Sall am na droit invoquer l' cinquante 52 de la constitution ñi koy wax yebuñu parlementaire ñu peuple sénégalais xam nga kan ngeen yeb le président Macky Sall parce que moom mi nga xamante ne si ba fii moom mooy le garant de la constitution ngeen bëgg ko dugal ci guute goo xamante ne si mooy ay reporter ay élection parce que on a nos privilèges de qui se moque am na loo xamante ne si rafetul ci ñun en tant que des parlementaires benn crise institutionnelle amul ci réew mi élection dañu koy dem le vingt cinq ñi pare pour dem ñu dem ñi parewul dañuy toog xaar mënuñ fee def dialogue voté fi ay loi barki boo Ndiaye bu parrainage voté fi ay loi ci code électoral te biñ koy voté c'était majoritairement ñun ñi fi toog ñoo ko voté dañoo bëgg a taxawaat revenir ne il va falloir ñu defaat un autre dialogue wala ñu discuter pour permettre a aux autres candidats yoo xamante ne si bokkuñu conseil constitutionnel daf leen a rejeté ñu ne nañ da war a bokk par la force beneen bi lii dañu wax ne ñun dañu jàng gis nga bu ñu leen ne jàng leen ngeen bañ texte lañ ñu jox wax ne dañuy def commission d'enquête parlementaire pour élimination de Karim Wade et des autres candidats loolu mooy le texte mais à l'article premier nous dire que dañuy ñëw on va la commission est constituée de parlementaires euh, pour réviser tout le processus électoral kenn du ko voté pour jox leen ay porox ndollu ngeen fomm élection yi l' élection se tiendra ku parewul da xaar ñun suñu candidat daa pare Aline Mamadou Dia